jërëjëf mbokku téléspectateur yi seetaan Bantamba yi am na nu mbégte ak contentement bu mag jàkkaarloowaat ak yéen ci biir Bantamba TV mbokk yi mi ngi noonu seen émission bu bees tàq boo xamante ne nii indil nañ leen ko ngir leen ak yéen ñun ñoo leen ko digoon neewoon nañ leen lépp loo xamante ne nii dinañ ko def pour ngeen bëgg dinañ ko def tey ñu ni leen émission boo xamante ne tey mooy première numéro bi ñu fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy bat géwël yi bat géwël ngeen koy am fii ci biir bi TV maana ci ak Lex Bamba ci micro bi ñu war a waxtaan ak yéen tey boo ñu gisee nii xool suñu ginnaaw nga xam ni ñu ngi fi nga xamante ne ni moom mooy jàmm gën jàmm gën mënoo koo wax ci bat géwël teexoo ki nga xamante ni moom mooy jiili ak yeneen i ndaanaan yoo xamante ni ay tëggkat lañu nekk fii mbëri xaar leen ñu seen i géwël ndax defe naa ni géwël lu mu bokkul dina am lu bëri loo xamante ni dina manqué ci wàllum làmb géwël yi ñu fas yéene tànn leen xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy tëggal mbër yi ñu waxtaan ak ñoom am na lu bëri loo xamante ni ñu ngi gis géwël bi ànd ak mbër mi di tëgg mais am na lu bëri lu làmboo ak li ci biir loo xamante ni bëgg nañ ci indi faram fas yéene bi nga tàkk yéen ci wàllu làmb lex da nga koy jox madame Badji bu ko defee mu xool ñëwul ñu ci jiili benn action ci jiili ñu xool jiili kan mooy jiili avant ñuy ñëw ci moom madame Badji jox ñu dara ci jiili jiili mën na ko wax te waxoo Siteu jiili ànd na ak Siteu ñu xool nan lay def ak yéen. si gis nga loolu jërëjëf madame Badz ci loolu nga xamante nii moom nga ñu jox ci jiile kooku mooy jiile ki nga gis mu tëgg loolu Siteu bàkk loolu kooku mooy ki nga xamante ni moom mooy jiile moom lañ bëgg waxtaan ak moom xool nan lay nekkee ak waa koñ bi xool nan lay nekkee ak ñi nga xamante ni ñoom lay àndal di bàkk ndax benn géwal benn ndënd kese ah <laughs> des na ay sàppali yoo xamante ni daf ciy am ñu xool jiile. gis nga jàmm a gën a ngi nii gis nga heure bi fekk na nu ñu liggéeyi ba wàcc toog waxtaan ak gars yi lekk si kañ dem nga xool. eh les eh, bëggee de mais alaaji ji. mais am nga jàmm. sant Ahmadou bu baax ziar naa Bamba. mais ji fi nga génn dafa baax. waaw mais ah balaa lañ def woote jàmm rek mais yow fii. lan la. mais woote jàmm yaa ah, noonu la demee jàmm de si la lépp xaj. mais fan la fekk. Bamba ñoo ngi nii jàmm gën. foo xam ne tamit fi lañ juddoo fi lañ yaroo. xamuñu fenn fudut fii. barki Serigne Touba lu mu guddi guddi la ñuy ñibbisi fi lañ am fi lañ dëkk fi lañ yaroo jàmm gën. waaw sëñ Fallou ko tuddee woon jàmm gën. te Serigne Touba mi nga xam ne ñun moom lañ yaakaar dana woon jàmm gisul lu ko gën fii fañ jëm. kon ñun sant nañ bu baax jàmm gën lañ dëkk moo foofu nga ñu fekk fii lañu nekk nii fi nga xamante ne nii buñ fi wax duñ doyal dëkk bu ndaw ndaw la mais am na lépp yaatu. bilaay wallaay. mais bi ma ñëwee maa ngi fekk gaa yi wër la gaa yi toog mu mel ni ngoon gi nii da ngeen di xaw a jàpp toog bégee xam waxtaan. waa en général nag lu si ëpp noonu lay demee ngoon maa bi ñun ñëpp fii la ñuy tase xanaa ñu jàpp loolu dafi leneen mooy tax mais sinon ñun ñëpp fii la ñuy tase suñu place su bi baabaas rax la sita gaa yëpp fii la ñuy tase mbër yeeg ñëpp fii la ñuy ne waaw fii moom mooy mooy mooy karaf bi quoi moom mooy are am mooy lépp waaw diggante bi fii la ñëpp di daje am na lépp fi tamit waaw. kon mafia bi ñoo toog nii. waaw mafia bee toog suma rakk yi samay xarit su may am di jàmm xam nga nii lañ koy defee chaque jour toog waxtaanee ay bàq waxtaanee lii waxtaanee ñun bu ñu fi nekkul sax ñoom booy ñoo ngi fi chaque jour. moo tax saa bu ñu génnee rek mën naa ne li xew à chaque fois fii lay génnee parce que lii moo fi am chaque jour retrouvaille bi mais bat géwal la lu wax premier numéro bi ñu jox la waaw loolu sant yàlla la parce que Bamba yéen yéen a ngi si affaire yi si si si mbir mi ngeen nekk xam ngeen kat yëpp ñun dàqu ñu fi dara amaana li tax mu njëkk rek ñu ubbeeku si ñun loolu tey tombé waral ay gaaf dañ ci sant yàlla bu yor ndax tëggkat yi bari nañ fi te Bantamba TV tey tele la boo xamante ne nii ku nekk bëgg nga mu dékk la micro ndax suñu alalu papa la xam nga ma faaliku man daa ma tëx ba bàyyi Moodu père Begaay ma koy nuyu moom dafa ma bëgg trop. Bamba daal li ma la mën a wax mooy émission bi xew na xew koo xam ne yow la ñëpp di seetaan kon yow boo nee bëreet ñëw si man muy premier numéro damay dama koy sante yàlla di ñaan yàlla na fi jógee doon émission bu mag a mag a mag ba sut bantamba sax loolu laay ñaan. pour ñu yëngal madame Mbaz mu ngi lay seetaan da nga koy ñaan sa benn bàkk boo xamante ne nii àndoon nga ko ak Siteu ko defee ñu doog a ñëw si émission mais madame Mbaz looy xaar may ma baax boo xam ne bu neex nag laa bëgg xam naa ne amul lu naqari sax mais bu si yu gën a neexee laa soxla. dem jox ko seen yaaba di ca laale laalay baaxu góor yaaba jigéen na ko moom laalay baaxu góor la da guerre de sa yaaba ji ta laale laalay baaxu góor la da guerre sa yaaba ji ta laale laalay baaxu góor yaaba jigéen na ko moom laalay baaxu góor si moo mën a laale waaw waaw créer baax. baax boo xam ne incha allahu rabi la 19 mën naa koo tëggal Siteu te day toj àdduna pour wane leen rek mbir yi suñu borom la. bu la neexee da ngay toog nii rek naturellement nga créer. barki Serigne Touba li may wax nii. booy xamaguñ ko. te gëm naa ne dinañ ko def léegi bu sottiwul tamit dina am lu si tane léegi. dina yomb lay doon ah ñu jéem xool rek. ñu dem. Lax nee na day kere benn bàq ñu xool jékki-jékki Bantamba TV ñëw seet si la ngay da ngay créer bàq ci bat géwël loo wax laay def de damay créer baax en direct ngay gis leng si di gis. Euh, waaw téléspectateur yi di gis. ñu dem ma xool acca léegi gars yi. kii lu mu bëgg a feeñ. baax bu bees laa bëgg comme la guerre 2 ñëpp nee nañ du bëre day yaaba te ku ne xam ne ne laale baaxu góor la mais nag yaaba jigéen na ko moom. Ah. waaw kon loolu si loolu la ñu sukkandiku léegi dama naan bàyyi leen seen la guerre bàyyi sa yaaba ji te laale ngeen ne laalay baaxu góor ma waxaat la guerre bàyyi sa yaaba ji te laale ngeen baaxu góor. man a jigéen moom yaaba ngeen ne laale baaxu góor man la Siteu nag boo ko amee di nga laale. comprendre nañ comprendre nga li nañ bu baax. teel tey. léegi su ma su ma su su ma waxee lool gi jaba ca ki jabaxu rek ki jabra ca la ñuy def dafaat ki jaba ca ki jabaxu rek ki jabra ca kit te benn temps daf bar daba ca gees gees gees rakkit ma ne ca ca roora ca ca pax génn ca pax kee kët yaa ngi dégg léegi ñuy isee benn yoon acca ci ci ci test nga ne si test laa nekk ni léegi gars yi dañuy testé. lii moom ñun rek ñoo ko faam. yàlla dogal na ko léegi nii. mais expliquer li nga doon tëgg. dama ne. bàyyil sa yaaba ji te laale. ñu ne laalay baaxu góor. ma waxaat bàyyil sa yaaba ji te laale ñu ne laalay baaxu góor. ma ne jigéen moom yaaba. gaa yi ne laalay baaxu góor ma ne Siteu nag boo ko amee di nga laale moom. loolu far force la parce que la de guerre. foofu laa sukkandiku si affaire bi léegi lañ ko. kéré kon yow da ngaa jàngat la de guerre rek. ok fent si. Eh, parce que tey mooy li ma la man maa ngi si biir wayu làmb ñaara koy def. yaa ngi dégg mais munoo toll ni ngay toll tamit macha allah respecté nañ ko trop mais bëgg di taxaw fee ngir yàlla boobu ba léegi li muy wax le 19 lool lañ bëgg mu indi ko. loolu dañ ciy loolu dañ ciy toog waxtaanee jeex na mais baax bi moom la dëggee ko moom damaa bëgg mu laale. Ah. waaw xam nga après forcé wu ma ko laale bi boo déggoo way bi dama ne ko la dëgër baal sa yaaba jita laale. gaay na laalay baaxu góor ma ne jigéen a moom yaaba gaay na laalay baaxu góor kon waroon naa ko laale de mais sita laa ndax bu ñëwee sita dina laale moo tax ma ne ko sita nag boo ko amee di laale bul dof voilà jile dañuy toog ñu daal di koy waxtaane aca bisimilah e eh, mbokk yi mi ngi noonu gis ngeen li nga xamante ni moom moo fi xew gis nga jili ni nga xamante ni noonu la ubbee ak ñun dafa ñëw ñu koy nuyu mu ñëw keree fi benn affaire boo xamante ni nii léegi la ko xalaat moo tax nit ki dañ koy wax loo doonul taalibeem doo doon sëriñam boo ko gisee xam ni am na loo xamante nii daf ko tarbi waaye am na ci loo xamante nii nag may sunu boroom la ndax lii maa ngi koy doo gis jooni jooni léegi nga créer benn affaire teg ko ci waaye lépp ci seen émission Bac Gueweul noonu lay demee jile maa ngi lay nuyuwaat amaat mbégte jàkkaar ak yow ci biir banta Bantamba xaari Xarim Bamba maa ngi lay fay di kontaan sa teewaay bu baax la ziar suma waajee da ngaa baax waaw maa ngi bég si bu baax ak suñu doom lay suñu caméraman Lex moom suma waay la moom ñoo bokk sëñ Fallou ma di bëggee ñëpp àdduna Sénégal xam nga rawatina waa Bantamba TV comme ni ma la waxee sànq rek télé bi suñu télé papa la xam nga Jéeri Ngoone Malaw Samba moom yàlla daa dogal lépp lu muy def loo xam ne ñetti tëggkat da siy teew sax dafa ma siy woo soxla ma si. loolu nag waaw noonu la demee loolu fa bokk. waaw parce que man ak Modou mbay ak yow mii Bamba Baye Balla xam nga Pape Modou Matar Mbaye borom États-Unis macha allah ku lim juum yàlla na leen yàlla lafal cat xam nga. télé bi dam moom it ba raw télé yëpp mais émission bi man bëgg naa feeg balaa at bii ñëw incha allahu rabi mu tege si bépp émission lamb bu yam émission bi Bamba. non yow yaa ko ubbee te taalibe sëñ Fallou Bamba jur Abdou Khare de. garaaw laa lay wax. yàlla baax na wax mais àddina lay seetaan ñëpp ngi lay seetaan am na ñoo xam ne bëgg na noo xam jiile ak jiile fan la cosaanoo jiile lu ko dugal ci bàkk bi kan mooy dëgg-dëgg jiile. waaw Bamba question boobu nag dina yomb ma tontu si mais dina dina yomb dina mën na bañ a yomb parce que nit mënul wax boppam ama nga mais lii si ëpp solo daal mooy fii nga ñu fekk fi lañ juddoo yaroo fi jàmm gën kii ay doomu géwél lañ suñu ay mag dañuy tëgg suñuy papa dañ doon tëgg yàlla nag dogal na man sama famille yaay ak suma famille papa kii suma rakk la njarka ñoo bokk benn papa maak moom maak moom kese siy tëgg barke Serigne Touba li famille bi di rëy ak suñu njar ak suñu mag njarka borom siwis ñett ñooñu ñoo siy tëgg mais pour man ñu ma bokkal benn benn benn baay ak benn benn yaay man dong maa si tëgg ak kii suñu famille lu muy rëy rëy rëy mais ay géwél lañ si nday si baay man xaarim ku ma gënul doon géwél gënoo ma doon géwél parce que tey ba samay 15 maam si bu ma leen xalaatee bu may expliquer ñoo ñëpp ay géwél lañ. jële fu jëre ak mbay ñoo ma ñoo ma ëmb sekk ak mbay léegi dama lay ñëwal ku si nekk si maam yi ngay gën a xam muy sa ñeent maam ñaar ñu jur sa yaay ak ñaar ñu jur sa papa man sama maam bi jur sama yaay. bu jigéen Dégéen Seck la tudd ku góor ki Samba Jëmm Mbay la tudd yaakaar naa loolu rek ay turu géwél la kii Mbay la sant kii Seck boo ñëwee ki sama ñaari maam yi jur sama papa kenn ki man Njarka Seck la tudd ki si des Jërë Mbay la tudd kon fee Seck ak Mbay fii Seck ak Mbay man ñooñoo ma ëmb man génnuma Seck ak Mbay man géwél laa original su ma tëgee dama war a tëgg su tëggul dama war a tëgg suma ma woy dama war a woy su ma woyul dama war a woy yàlla boole ma nag ak waa jàmm gën ak sumay rax yi nga xamante ne ni ñoom nga lii nii léegi nii rek laa leen woo ñu bàyyi lépp ñëw parce que bëgg nañ ma bëgg woo xam ne fu ma leen woo ñu bàyyi seen lépp ñëw xaadim man sabar yi ma tiim sax sama rax yaa ngi nii man damay sabar sax dama koy gëj a gis non li ngay wax ni sénégalais yi mënuñu la dégg da ngay gëj gis sabar damay gëj gis sabar waral loolu parce que mooy li ma lay wax rek am na loo xam ne yàlla wax nga ko sànq say biir wax am na loo xam ne suñu borom moom moo koy def si nit man a aar sax loolu waru ko wax sax parce que tey moo ma sagal mais fi ma ko waroon a fi ma ko war a teg dëgg dëgg dëgg bu ma ko fa tegee ñu bëri dañ may xaar parce que ñu bëree ngi lappi lappi fii wallaahi lu azim sama ay maanaam wax moo neexul rek te man bëgguma bokk sax si loo boobu mais Sénégal boo dul wax sax mais yàlla baax na baal ma jàpp fi ma jàpp rek di noppi. nga def ci code. baal ma def si code mais ñu bëree ngi fi di nekk di jafe ne ko téye man sama ay booy lañ woon bërki démb te amaana ñoo ma mag waaw mais ku si nekk aar bi tax na yow nga mës a nekk sama booy. bu dee benn sax ma sottante kook yow ngay def sa yëf man la dafa lii wala dafa lii yàlla def si lim si def voilà mais tey Sénégal baaxoo na noo xam ne boo si amul ay millions wala siiwoo si rek pour ñoom mënoo ko sax moo tax nañ leen di rek ñuy aaki moo wax ñu ñuy aaki moo jëfi mais li am solo bam solo mooy bis bi nga xam ne tey même bu ma bàyyi woon sabar sax bis boobu du ma ko bàyyi mooy bis Siteu saa bu ma fa ñëwee incha allah nañ xam ne ji li ñëw na loolu moom dama ko assuré si kàttanu yàlla ak mbaaxam mais des lépp bàyyi naa ko ñoom nañ seere waaw kon jiile moom jàmm gën fi la juddoo fi la yaroo fi la màggee fi la defee lépp mais jékki-jékki wax nga ko géwal nga waaye nga jékki-jékki commencé tëgg lan moo la dugal ci tëgg. waaw tëgg li ma si dugal bu weesoo dret comme li ma la doon wax sànq rek dret mais après tamit dañoo nekk suñu ay mag fii suñu benn grand boo xam ne maas ñoo ngi koy nuyu au moom lu bari moo ko def si ñun maas fii la nekkoon moo doon mooy bëj géwélu jàmm gën ñun ñëpp mooy suñu patron fii la newoon di ñu jàngal si sumb ndongo bee yi ñu siy tëggantu xam nga ak mbooy jabaay ginnaaw raay ñoom buñ tëggalewul maas mbooy lañ tëggal mais ñun si maas lañ féete woon man ñu bëri dama defoon ne maag maasa boo ko ndey baay waaw moo tax ameel naa ko ajjuma yu bëri ak ay altine dinaa ko jox si kaatanu yàlla beneen bi tamit jóge naa fi 2005 ñu yóbbu ñu maag sama benn mag abi Mbacke pour ñu dem fa ñaw boobu ay téer lañ ñu dem fa di fa ñaw di ñaw di ñaw ba 2007 laay wadd war fa ñëw ma dem may xëy nii rek romb benn mitin bu mag bu am foofu fu ñu naan jàmm gën Mbacke mu gis ay tëggkat muy waa kër Mbedd Mbaay suñu papa Baye Mbedd maa ngi koy xam nga ñaanal yàlla xaree ko àjjana suuf oyof si kawam ma ñëw rek gis leen ak waa kër gi amoon fa koo xam ne ñoo tolloo woon Pambaay sama la woon ma ñëw ànd ak ñoom gis nga ma leen tëggalee mitin boobu ba mu jeex dañ ma tegtal seen kër ma dama si gàll bi ñu ma yóbbu woon ma nekk fa damaa teel a jël sama saak romb leen fàq dam nekk kër googu ndax la parce que boobu waaw téer lañ ma fa yóbboo ma dam naa rek aara ngi ñëw xaw ma lan la mais dama gis tëggkat yi rek ñu tegtal ma fi ñu dëkk rek ma dem jël sama saak tuxu ci foofu bi ma duggee si kër googu def naa fa trois ans di ànd ñoom di tëggi di ñëw dama ba bokk ak ñoom ndey bàyyi waa kër googu ma leen di nuyu ñëpp ñoom Aliou Pambaay sama seex xam nga Kulim Dioum Dambaay di nuyu ñëpp ak suma yaay nday seek ak maire yi foofu yëpp maa leen di bégee si laa ñëwaat nag mais tey ki nga xam ne bu nekkee daf naa école bu nekkee art daf naa si université njarka la ñoo bokk papa parce que bi ma dikkee ñun jàmm gën fi am na benn rythme bu doon daw quoi loo nekk nekk boo da ngay xaw a am fit xam xaw a nekk si yaa ma gën a xam quoi mais moom mi ngi woon géejawaay Cheikh Wade rond point Mor Fadam moo ne woon bëj géwél foofu yëpp moo fa doon tëgg njarga amoon classe nag xam nga foofu laa njëkk xamee ne géwél ndakate waxul nekkul gàddu sabar rek la war a def fa laa njëkk xamee ne nekkul ndakate warul yow nekk fi ngay tëggi jee muy ngénte da nga a añi jee parce ñu man du ma la nëbbu yàgg naa dam di añi ñu war a tëggi fenn teel faa dem dëbbukaani yoo baale dam añ fa lu mag soog a tëgg mais fa laa dam ñu orienté waan ma wax fa dëgg yàllaam ma commencé di gis bu ñuy tëgg si buntu kër gi la ñuy taxaw taxi bi ñëw ñu yàpp ba pare solloo ma gis leen ñuy solloo xam ne dama ne mais ñii ay pambay bi tëggal guy gi si la bokkoon bëri woon na am di miy tëggal keebaa bëri woon na bëri woon na tey mën naa ne la bu si ñaari ni desee sax bëriwul ñëpp tukki nañ groupe boobu tellement que bu ñuy tëggi bu ñu génnee da nga naan ñii nii nii Macky Sall moo leen woo xam nga foofu moom kooku kon parce que loolu mooy bi sama xel ma gëm ne ah ñun de ay géwél lañ mais kooku da doon bañ loolu ay comme tëggi nii naan ay tëgg ay may leen tëggkat yi ndox ñu naan ko ma ko foofu laa ko tàmmee wallaahi la azim ma ko siy gërëm bu baax moom it mbokkum yaayam Pambay njarka seeki jëree bàyyi sëñ Fallou maa ngi lay siyaar wér grand bi moom daf na si ñun lu bëri loo xam ne loolu moo ñu gënal xaalis foofu parce que tey xam nañ suñ bopp xaalim duñ tëggi fu ñu wooweewul milliard ñu ko doon séddale fi ñu toog nii ki koy joxe man bu ñëwul jox ma ba fii bu taxee fee sànni ko muy naaw wallaahi du ma dem jël dafa am loo xam ne yàlla xam nga li la war c'est que du ma bëgg wax parce que Sénégal wax fi dafa mete mais man ñi ma xam jàmm gën dëgg xam nañ ma damay pro boo yaay nii mën naa toog 6 mois du ma tëggi man am programme lalaa mi mooy suma lépp am programme woo ko jox ko mu ànd ak booy dem ama parce que ay ndaw lañ mais man man man xaarim li may sentir si aar du ma ko sax bëgg a wax parce que dafa teel quoi man maa ngi gis leneen. fi nga ko ak fi mu ko bëgg a yóbbu. moo tax tey soowu ma sax si ay tëgg yi ay tëgg yi tànn béer ngénte yi donte da lay am lu lay fattal te amuñu leneen lu loolu ma man dafa am yeneen yu nekk suma xel voilà parce que àdduna ñaara fi nekk rek ki ñuy tudd ñi ñi ñuy tudd ak ñi leen di tudd waaw am ñun ay ndaw lañ mais war nañ mën a liggéey ba. bokk si ñu ñuy tudd ñuy daf mais ñun man bokk comme ni may gisee nii si aar ni bamba du ma la nëbb de bàyyi aar rek laa bëgg damay dëgërlu sax du ma ko bëgg wax mais nit ku nekk da ngay wax li nekk si yow bu nekkee aar bi am nii moom moo am man damay préféré may bàyyi sànq moom laa lay cax naan la même bu ma bàyyee aar sax daa bis boo xam ne mënuma ko bàyyi muy Siteu parce que muy tourné di ma gis daam muy def si moom bu dul woon kooku ba léegi bàyyi naa aar ma. mooy comme ñu ko ñeneen ñi di waxee aar dafa bëri loo xamante ni léegi dafa yàqu. aar léegi bëri na yoo xamante ni war nañ koo ko rectifier merci te tey koo jurul jëndoo ko mënoo ko bàyyiloo lenn te nit am na ñoo xam ne donte ñu ngi xëy si benn affaire di si am xaalis rek du ñu xool conséquences yi yu positif yeeg yu négatif yi aveugle la ñuy demee mooy dañuy def rek te ba benn nit dina tax ñu tooñ askan man damay toog sama gàlle di lire TikTok wala dara sama téléphone gis ñu wax géwél loo xam ne jooy dee rek laay bëgg parce que man damaa xam ay géwél damay bëgg ñëwoon sax ñu ñëw sama suñ kër xool ay bamba géwél moom mooy yor ñeenti junni léegi war koo dépassé ñaari fan lekk ko tey waa koñ bi yëpp ñëw añee fa suba ñuy xaar yàlla géwél mooy ànd ak ay xaritam man bamba damay tëggi ba pare man ñi may àndal kenn du si géwél mais ñoom laay seddool sama xaalis ba mu jeex te yàlla xam ne duma si laaj kenn leen aw ma géer bokk géwél dëgg dund aar nan la war a dundee dëgg gis ay warul sax am géer xam la la war am ay xarit ay xaritu benn baxan man géer sax parce que xam lan mooy géer yow sa géer bu kon boo dundee affaire géer rek mooy yow ne koo waxkatu dëgg ndax sa géer bu yoree li muy yor parce que xaalis seexluwul kenn ki gën a bon mën na ay milliards toog yow nga nekk nit ku baax ba pare ñëw tiim ko di wax si moom loo xam ne adduna bi yëpp dañuy xam ne xaalis a tax ki kii noonu nit xarit la war a am bu méttee nga waxu dëgg mais man gëwuma ay géwél ak ay géer man ay xarit la am barki maam Serafal télé laay waxe du ma awuma géer du ma géwélu kenn ay xarit la parce que amul kenn kuy toog wax fa dëgg yàlla am non ma lay wax sama soxla wala dara te liggéeyuma lu dul aar moo waral damay toog yenn saa mu metti wala dara mais damay toog muñ ko parce que damay xam ne ñun li Pape Diouf naan ay wurus di dignité ak or ak ngalam ak yooyu yëpp dignité gu gën parce que Serigne Bamba ndax nag juddu bu rëy ndey ak baay mais borom yàlla xam na ne ñoddi wuñu lenn lenn lenn lu nekkul si ñun mais boo gisee sowuñu si aar lu bëree bëri te jamono ji aar ñu may seeraat ñoo gën a xam li ñuy wax am na dañuy bëgg di def ay morceaux yu gaar yi def soirée mais man Bamba sama àdduna ba ma nekkee si aar ba léegi benn yoon laa mës a def soirée tànn beeru anniversaire lu ko ñi mosuma ko def te samay million wa ne su ma neexoon chaque weer ma woote benn enquête sa ba doyal mais bugguma sax xam nga di sonal nit ñu bëri parce que fi jamono ju toll ak yooyu waaw mais li may sentir man muy nekk sama xel soo koy expliquer sax du du yomb pour nit ñi dégg la. mais mais mais bari na ñu meloon ni yow mais dañoo jékki-jékki bàyyi ko fi dugg ci way boo xoolee Bercy Pape Diouf yee man maa defoon maa defoon morceau publicité bi te ku ko dégg xam ne lii du affaire coomo xam nga ku ko dégg xam ne temps la ba tey dugguñu studio defuñu ay morceau mais ñaata ni day def morceau envoyé ñu ko ñu xool lii te suñu akulaay taala lañ lay wax ne la gaan dindil lii dafa le def si lële arrangé son bi xam nga suñu raq ji rek moo ngi def son boo xam ne coow li suus suus bi ngay dégg nii moo ngi ko def depuis daaw mais ñun ñoo dem studio waxuñu si defuñu dara mais ñoo ko xool dafal li dafal li mu tourné def ko dégg nga moom li ko ko tuddeeloo coow li sax xamu ko mais tey ñun dëkkee nañ secteur boo xam ne dafa ginnaawee looy def rek yàlla moo si mën a jàpp rek mais fi ñu dëkk moom moo mel noo xam ne pour nga faayat ba génn yombul parce que dañoo xaw a sori lu bëri gisoo suñ bëri sax jàppale sax amuñu ko kon waxantuma laa ñun mais dañuy sant yàlla mais li wér te wóor mooy xaarim am naa lu lu ma gën a bëgg ka aar man maa ngi si nii nag parce que tey am naa ñu ma bëgg même bu dee ñaar lañ moo tax ma bëgg a tëb tëb bàyyi mais am naa ñu ma bëgg torop moo tax du ma bëgg a tëb tëb bàyyi mais am naa lu ma gënal aar quoi waaw aar bi am nii. mënu ma ko def parce que aar bi am nii boo si nekkee li di ñoo di dañ naan dafa soof sax. wala dañ naan dafa bëri tiitër. fekkee yow bëri woo tiitër mais du du ma lëmbal xam nga wu du ma fréquenté say salon du ma ànd ak kenn koo xam ne dañ lay xool di am bët bu ñu lay xoolee. barki sëñ Touba soxla wu ma sa fiki dërëm loolu nag boo ko melee si aaru léegi da ngay sonn. parce que dañu naan waaye ki dafa waaw am naa lu may bëgg ndax mën naa am sax ma dem am 40 ans di jiite benn juma mais boo fi nekkee topp aar rek topp aar. yaakaar ne du jeex. foo noddu dañ lay tiktok di la reetaan nga mel ni nit ku bon fekk yow kenn gënu la mais li ngay liggéey mooy dem ba sànq la yàlla baax na daal baax na. ñu jékki-jékki jiili ñu gis ko ak Siteu sa digganteeg Siteu xamante bi sa digganteeg Siteu nan la demee ba nga koy commencé tëgg. waaw Siteu fii ñu toog nii lañ doon jaar maa moom xëy di wàcc marché Diamaguène. ba bëreegul non boobu Siteu Siteu liggéey nañ 10 ans waxuma la liggéey sax mais waxuma ànd bi ñu ànd mais maa moom ànd nañ di xëy fukki at te bëreewul waaw di ànd di xëy di wàcc yenn saay sama gàlle la ñuy fanaan yenn saay yi gàllem la fanaan mais comme man damaa bokkoon ak nekk sama ñaari grand yoo xam ne ñoom teel nañoo gis wecceet bi quoi muy jiili ñi ngi maa ngi koy ak galas ñi ngi xama ñuy dem Mauritanie di jënd ay pièces détachées ay bagages di ñëwaat fii di ko jaay ko jamono jooju nekk yombul. ñoom ñor néeg bu rafet man ne maa fa nekkoon booy ak gaan bu ñuy dem ma jox caabi mais comme ñu dañoo teela a bëgg ndongolo dañoo doon foofu ay séeréer ndongolo ay image ay affaire yooyu buñ demee mën ak cité ñoo fay fanaan yooyu la ñuy seetaan ba fajar bu fajaree ñu sangu noonu la ñuy jaaree xëy di ko def di wàcc ba bis bi muy njëkk a bëre mbapat loolu kom démb si man ba tey maanaam bu ma nekkuloon kat sax dama koy xëpp gàllaaj wala may bokk si staffam di waxtaanam maam mënu ko sori moom si zaar ak parce que boo boo demee woon ñoom si laaj leen kan mooy xarit Siteu ñu wax la rek buñ fàtte man lañ man la ñuy woo man la ñuy loolu yàlla dogal na ko barke sëñ Touba waaw. nga jékki-jékki yéen a ngi ànd mais teewul nga jékki-jékki commencé ko waaw mooy li ma la wax que tey. première yaay première personne bi ko ñu tëggal. maay tëgg première nit bi ko tëggal te avant tëggal première mbapatam hmm. ñoo ànd maa toog si kanam oto bi biñ demee ba si buntu làmb ji man la wax mbay la laay wax. maa toog si kanam oto bi Siteu bi toog si ginnaaw ne ma la laax ma tourné ma nit xaw ma lu nga wax ma ne waxal juróom-ñaari sëñ Fallou mu tari juróom-ñaari sëñ Fallou dam waaj daan daan jël bu rëy mi ngi nekkoon sur lendemain euh, deuxième combat Issa Pouye ak Balla ba si ginnaaw suba si la Siteu bëre fii moog Ibra Fall première lambam mbapat premier combat am mbapat na mal mbay lan laax ma ne ko waxal juróom-ñaari sëñ Fallou waaw ba nii nii nii du ko bëree mu bëre daan mais nga commencé ànd moom ci mbapat commencé di ànd si mbapat boobu yaa ngi tëgg ñuy yóbbu ay xiin moo boobu tamit parce que Siteu mi ngi mbapat ay côté 2008 parce que après bi ma jugee comme li ma la doon mbàkke noonu ba ma fa nekkee di ko toj après dañ ma indi parce que boobu sama tamit mi ngi bëgg ma liggéey quoi après dañ ma indiwaat fii léegi indiwaat Dakar bi nag moo wara loolu noonu ñëw tombanteeg Siteu di bëre mais Siteu sax mbapat bi suñu benn grand boo taximan lañ joxoon avance bi ñu naan sal yàlla bi ñëwee ba si semaine làmb ji kii moom réer kalpeem boo xam ne permeem yaag xaal lépp ci la ne talatul bëre bi Siteu ko jox ma làmb ci ñu jox ko Siteu looloo tax sax mais boobu Siteu a ngi bëre nag si koñ bi di ko toj quoi ñu xam ne kii mbër la mën na bëre trop mais boobu sew na sew koo xam ne mooy loolu après ci lañ ko jox làmb ji mu dem daan ñu commencé topp lool mais man Siteu làmbam yooyu fekkul tuusa luñ ko te teewul waxal lii laa ko wax te boobu tëgg ñëwagul bi mu demee nag ba tëgg ñëw tamit noonu la demee rek combat nga ko njëkk a tëgg. arène. Siteu premier combat am. moo tax tey waa kër Pape Seyki suma grand ñoom Père Assane ñoom ala ñoom Pape Pape Faye suma xarit xam nga ku lim jum nuyu naa leen ñoom ñëpp tey ba ma ñëwee saa bu ma musaan ñëw dañ may jox parce que boobu Siteu warul dugal sabar mais su ñëwee ñoom dañ may yaatal jox ma ma tëggal Siteu ma paree suwaat yi ma yéegaat si kaw tribune bi wala ma toog mais ñi ngi commencé indi sabar nag Siteu Rouge Bordeaux waaw boobu Siteu bëréwul grand combat sax mais comme day xam nañ ne kii day indi ay nit te day neexal dañ ma ko doon may quoi. mais yaa ngi rappelé wu ko njëkk baax bi ma ko njëkk a tëggal non mënu ma ko rappelé wu nag parce que man chaque lamb dama doon changé baax ba gars yi dañ ma daan xas naa ma yow gisoo ay ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo ay benn seen baax bi moom lañ yor ñëpp xam ko mais chaque lamb nga changé man leen pourtant ñoom man looloo gën a yomb sax ma tëgg benn baax rek tee ko mais man sax làmb léegi la sax mais bi ngay xam nga boobu da ngay gën a nekk booy affaire yi da koy gën a bëgg daaw ma nelaw bu ñëwee si làmb si des na weer du ma tëree guddi du ma sax mën a nelaw tamay xalaat di xalaat di xalaat te moom tamit yàlla dafa dogal su ma ñëwee ne ko nañ seet lii su ma ko ko joxee sentir ko moom xam na samay capacité mbay xam naa la dafa leneen la may wax leneen ma joxaat ko sama gémmiñ mu ba ba mu naan ma lii baax na wala comme ni ñu ko defee mais mais bi ngay doog a doot si te est-ce dégg nga kii li ma laaj mu ne ndax bi may doog a door si te neexoon na tëgal male kii li ma li ma laaj mën nañ laa tontu moo tax tey bu ma déggee naan si te dafa mën a feej damay ree rek moo tax mbër wara a fonk ay nit mbër mbër mbër mooy appoo lépp ngay tëdd ba guddi xalaat baax bu amul fen ñëw joxo ki nga koy tëgal du ko mën a feej bu ko mënee feej sax bu demee ba làmb ja baaxu si bi la ñuy wax fekk ki si dee dee na si mais noonu la demee mbaaloo gi nii déggal la déggal la jërëjërë yi sab maame waaw xanaa xamuloo ne sekki sekki néegi mbaaw mégi mégi yu fi géej tey la sama yaa ne ngaan jaay ku jekku del baale ay waay ngañ dem baak wali ma tax kuy galis naay kuy doon ma sàmm jee waaw waaw guy galees na atureer naay atureer ku jekku del baale waaw waaw amari goni arambaay gi ñax de badaari may sa joor la dageer bu la si ta jàppee dootoo ko defati waay fii mooy jàmm gën fii la juddoo fii la ñu yaroo fii la ñu màggee yi derkindaa ay derkindaa la duñu bàyyi bilaay Siteu bàyyi yaa baaxee Siteu yaa baax yaa baaxee tey la Samba yaa na ñaan njaay woo naa yaa baax ay waayi Siteu bàyyi faal yow mbaalo mbaalo waaw tey la Samba ne gaan jaay la dageer bu la Siteu jàppee laaj ma nu ma koy def la dageer bu la Siteu jàppee jili moom nu mu koy def mbaala nu mu koy def ne leen weñ ba mu wow kin kin weñ ba mu wow weñ ba mu wow weñ ba mu wow bilaayi fobeere leen ay waay fobeere leen Siteu fobeere leen Ando Tirifok action waaye yow loo tëgg dëgg la man dama ñëw rek tombeek ay may gaare ku ne xam na ni yow yaay Siteu Siteu mooy yow te yaakaar naa ni tey ñëw dalal nga ko baax koo xam ni kenn la ci ñun muy fierté ci ñun fu mu dem ci àdduna day bokk parce que xolam moo tax ñun nag on est ensemble ñun ñëpp nii la ñu yàlla boolee def Siteu nag di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ak mboole koo xam ne rek yaa ngi takk ngemb di la wax ne yow la dëgër jili waxal ak moom waaye. ndeysaan gis nga lex lii mooy aar aar ngi nii ngam ñoo xam ne ndeysaan foo leen fekk temps lañu. ndeysaan lu am mbaalu maa ngi koy bëggee tamit boo xoolee saa bu may tëgal Siteu moom moo ngi si ginnaaw comme création bi nga doon wax noonu rek sita Zarko laa toog xalaat dina neex dina yëngu Siteu yegg si na ma ne lii comme ay way la te ku mbagaw la luñ ko tuddee. non comme ay waykat a ngi fi du ma forcé di ko wax te ku ko mën a way ne fi man jubalu ma si sita ma dem ba si mbaala jour boobu ndeysaan daas mi baabaas ñoo nekk ma dem ba si sita ne ko dama xalaat léegi benn affaire dina neex dina yëngu te Coumba Gawlo lañ tuddee drapeau bi ah, ma ne ko waaw laa xalaat mais comme ay way musul amagum si làmb mbër muy tus waykat di nekk si biir nañu woo mbaalo waaw ma ne ko keree naa ko boo ko sax mais dañ ko def ay way nañu woo mbaalo ndeysaan moom mu ñëw neexal ko toj ci way amul suma xarit la maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ya ñu ngi woon ci Siteu ci bàkku bi nga koy bi nga koy njëkk a tëggal ak ak répétition bi neexoon na wala. bi ma koy njëkk a tëggal Siteu Bamba boo ko mësaan jox baax dama daan yendu kër maamam ndax ñoo jàkkaarloon kër tamit Siteu ñoo jàkkaarloon kër fii tabla xaarim boobu tuxooguñ dañ daan yendu kër maamam ñu ne comme ça ngoon dañuy répété boobu ñu ngi camp ba fa lañ doon entraîné maag Siteu dañuy yendu dama koy répété sama gémmiñ répété ko ba sama baat bi dee ba Siteu mooxal mais Bamba li ma leex ni nag bu ko nees wala Tidiane Faye seetaanee dinañ reeba dee dax ñoom fekkee nañ lépp xam nga Siteu buñ demee ba nit ñi toog nit ñi wër ko bu ma Siteu day mel ni du moom man day mel ni nekkul kii laa ko quoi su ko defee jamono boobu tamit damaa boobu damaa xaw a tàng nag xam nga bu defee ba mooy mer sànni sabar yi mu tax waaye mbay rek naa ko mën ma ko waaye dimbale ma yow gaan ñoo ngi yendu sa kër ba nga xam nga waaw yow ba war a tare rek. non bu ñëwee ba nit ñi wër ko doon day sama xol bi day day dagg parce que tellement que moom da koy moqal mais bu ñu demee ba du ko mën mais boobu fili nga ngi si moom mais boobu feccam dafa xaw xawoon nekk si njóog boobu comme genre Siteu boobu comme nu papi général la woon rek boobu moo dàq njuug si àdduna njuug loo ko si tëgal mu dem maa ngi fàttaliku Tidiane Faye bi muy bëreeg Ousa Saw Siteu di si bëreeg Mame Balla boobay première défaite Siteu ma ñëw di ko tëgal bàq bii ñu bëri xamuñ na maa tëgg loolu. Ah. waaw maa ngi gis ay ëmb ak ñëpp di ko feeñ mais loolu maa ko tëgg. muy ban maadam mbuur dégg kankurang yi ñuy tëgg si si si euh, nu mu tudd sóoru bàyyi nekk si genre gaam mu jox ma loolu mu ñëw tëggu ko. lii maa ko tëgal Siteu <laughs> lii maa ko tëgal Siteu mais comme boobu Siteu mbër mu ndaw la bi muy baaxu fekk na sax tele yi ñëwaguñ ci làmb ji bi Tidiane Faye nag di baaxu grand combat bi moom la baaxu ñu doon wax baaxu Tidiane fay bi fekk boobu Siteu baaxu na ba pare nit ñi xama rek lii maa ko tëgg tey fu ne laa koy dégg mais sant yàlla la ay mboroxe mboroxe maa ngi ko tëgg maa ngi ko ay caxugun <laughs> mboroxe mboroxe maa ngi ko tëgg Cité Malo Seras Cité Malo Seras laa ko tëgg. yow da ngay créer bàyyi gars yi. que chaque lamb boobu dama doon bëgg chaque lamb ma wane lu bees te boobu ay bees yaa ay ay amul gisoo tey gisoo sam père mbéy ngay fay. benn jour damay wax ak Fallou doomam ma Fallou sama xarit la fay biram maa ngi koy bëggee sañ sañ biram Gueye ma waxtaan ak moom nii rek mu paas ma père père na ma jiili mais dégg nga morceau bi ma lay rendre hommage affaire bi mel ne ay milliards man ndax ku toll ni père mbéy fay. ma ne ko ah père lan la boobu morceau Youssou Ndour boobu génnagul mooy bi ñu def baraku ndërëñ taj tam baraki ndërëñ ki dërëñ mu ne ma mais loolu dugal naa ko ma kontaan a kontaan mais damaa kontaan ba per coupé ma ne oh sama xel per mënoon na maa woo de imagine jiili moo tëgg lii si Youssou Ndour dina ma xaw a apporter dara mais moom sam papa ju ma bëgg la moom it père Mbaye Gueye muy mbaraxu gun ñun Bamba wax fa dëgg yàlla am amuñ problème boobu ñun bu dee loolooy maye ndam ñëwee ndam la ñu may ñu benn bàkku Siteu bu ko defee ñu doog a ñëwaat. léegi dama lay may baax bi nga xam ne comme baaxu Siteu bi passé dama tëgg ñu ne ma baaxu Balla Gaye bi laa tëgg te maa ngi ko tëggoon moom it Siteu Pam Morlo waaw. après dañu waxtaan si défilé nag Modou Mbaye jour bi ma ko waxee défilé laa indi si lamb ji daf ma yéenoo mi ngi doon defal Baye Ndiaye raxu senteel si roobu temps affaire kii yooyu mu doon def xaw ma mbër gàll xaw ma xam sa mbër. mbër gàlle mu ko doon defal Baye Ndiaye ñu tase fa maag Siteu ñëw nii rek mu ne ma mais li lamb ji ñëw loo waaj boobu Siteu ngi war a bëre Pam Morlo jugee si défaite contre Boy Sey ma ne ko lamb ji ñëw par hasard maa nii rek xaw ma lu ma ko wax sax ma ne ko damay défilé 4 avril la mu ne waaw ma ne ko man damay défilé maa ngi ko te bi ma wax loolu waaju ma ko de dafa ma laaj rek loolu ñëw si man waaw sama mafia bi la yaa ngi ragaluñ de yaa ngi dégg daf ma laaj lan ngay indi rek automatiquement ma xalaat te ñaata mbëre fi bëre 4 avril 4 avril ay ñoom taay seen ak ñëpp mais pourtant ay dañ doon indi ay tëggkat te ñi doon indi ñoo ñu tëgg fu mais lan moo taxoon xalaatuñ ne dañoo a défilé yàlla baax ñu dem ko fecc ko ma ne woon tey la dafa war a neex 4 avril la woon lii 4 avril la woon wii lii daa fees. te lii dafa yëngal stade bi non trop trop trop mais bii mooy biñ ko mujjee xam nga 4 avril Siteu da ko bëree ñaari yoon bu njëkk bi mi ngi nokkoon contre Pam Morlo mais bu mujj bi moog Zos la 2018 nii lañ ko nii lañ ko defaraate woon contre Zos mais baax bi yaakaar naa ne yaa ngi koy fàttaliku waroon na aduna trop trop trop trop waaw noonu la demee. mais bëri na ñoo xamante ne dañ naan tëggee góose jigul mbër loolu yàgg nga ko. Ah, wax nañ loolu Siteu bi muy soog a door Siteu leen kii ne waxuma góose mais bu nekkoon bu doon tëggee bopp sax moo may tëggal barke Serigne Touba loolu ñëw nañ ba Siteu ne ko góose warul tëggal mbër parce que war naa fi tëggal Siteu sax lamb bu for samay sabarte ko sama gaale ñëw fekk ñu xotti lépp barke Serigne Touba mais koo xam ne métier bi boolewu leen parce que man tey bu ma mënul woon dara sax Siteu maa koy tëggal. mais loolu noo ko dundee jour métti parce que boobu day fekk nga nekk booy xam nga fi la lamb ji di toll nga for say sabar da cay coono sa mbër war a bëre suba si nga yëg sa gàll ci kaw di xool ndax affaire yi kii ne ñëw fekk ñu xotti lépp waaw mais da ay sant rek xam ne kon yow fi nga nekk nii am na ñu ko bëgg te yow amaana boobu ñun yëguñu sax loolu ay tëgal mbër ak yooyu boobu ñoo ngi doon demee bërdi bërdi nii rek mais sentir ñoon sax affaire yooyu. mais loo ma loo mës a dund ak moom mu métti la nga xamante ne boo koy fàttaliku sax daf lay. non non loolu bari na trop. si làmb loo xam ne comme maanaam moom moo ma koy def wala làmb wala lan. def la non loolu moom daanaka chaque jour chaque lamb si ta mu dal ma ma am lu ma lu ma métti trop wala ma kontaan si parce que tey ñun yaakaar naa ne dañoo weex donc déjà première métti rek mooy ñun buñ tëllee rek beneen bët la ñuy maam buñ ñun buñ lamb si buñ buñ egsee buñ wàccee si oto bi rek suñu jàmm ñun jeex na ba baa ñuy am ndam kontaan wala ñu mer moo tax suñu defee day métti parce que dañuy dund loo xam ne si biir lamb ji mënoon na ñàkk quoi. à chaque bunt bi dañuy gis xëccoo la wax rek parce que tey. dañoo xamul rek mais bu ñu xamoon sax ñun bu ñu ñëwee kenn du fat parce que ñun loolu nekkul si ñun mais boo gisee suñu xët-xët ak bërti bërti bi ñuy ñëwee ak bëreet bi ñuy am bi ñuy gungee dangay ngay defee ne sax ñi dañoo agressif wala dara fekk xër xër bi ñuy demee la xër bi ñuy demee la jàmm gën moo mel noonu loolu sant yàlla la mais nañ ci bàyyi xel ñun ñoo ëpp lu ñu met ñoo mujjee dugg si làmb mais ñoo ëpp lu ñu met si làmb waaw ñoo ëpp lu ñu met si làmb. mais am na ci boo ci dul fàtt. bëri tey bu ma si dul fàtte moom sama contre la maag suñu problème bi ak Papa Sow waaw yàgg naa am lu ma métti si làmb trop mais làmb jooju moom. waaw làmb ji annulé nañ ko ndax ji ku bokk ci moom. ndax ji li waaw ba pare ngay gis. ba pare ngay gis ba pare ba pare ba pare ngay gis ñoo xam ne tey say mbokk lañ war la couvrir taxaw naan ay géwél du yàq làmb mel ni yow yaat géwél waaw ñu dañ leen war kii ngay toog di am lu métti parce que tooñoo. dafa boobu tëddoo bu guddi am non trop trop trop trop trop trop sax parce que mu wóor na la yow Bamba ngay seetaan ay nit ñuy wax loo xam ne amaana lii boo ko defoon sax war nañ mën a xalaat ne yow de 2010 ba léegi yaa ngi ñëw si làmb mosuñ la fay aate kon boo amee tey problème bi juum la mais xalaatuñ loolu ndax mooy li ma la wax image jàmm gën lañ dëkk si la àndal xeex am na làmb ja kan la si tag waa ñeneen doo lijjanti ñooñu ah waa si tayee tooñ ngay mais ñi ngi sant yàlla bu yor ndax ñun bëgguñ ku dul Serigne Touba ak maam Serap Fall te nangu tuuma xaw nga def dara ñu waxal la ko mais dafoo dara ba pare ñu la ko jiiñ ñun loolu moo ñu nar a yóbbu àjjana moo tax nañ gën a wax yàlla baax na. mais boobu boobu non trop trop imagineel yow ñu tooñ la ba pare nga ñibbi si war a. làmb ay kilifa bëri na am na si ñoo xam ne dama leen si jàpp am na ñoo xam ne dama leen si bàyyi mais tey ku si mel ni lii gën ku si mel ni tey mbay si Ndiaye oh mbay si bu waale mbay si Baye Fall dëgg gi noonu su mag la mais daf ma bëgg barke sëñ Tuubaa mën nañ toog at duñ déggante téléphone parce que man xaadim man li may dund mooy man duma ma la du ma bëgg waaw du ma nekk sa kanam mais damay dund sama xol loo xam ne maa ngi lay ñaanal maa ngi lay bëggee maa ngi lay def lépp mën naa la bañ a woo mën naa la bañ a def dara mais mbay si wóor na Serigne Bamba yamale wu ma ko nit si aar parce que moment boobu noo jàppale na ma trop waaw trop trop di ma dolliwaat ba bi làmb ji amaatee mbay si Ndiaye moom moo doon dolliwaat waat Anta Ndiaye am na benn su dafa ma wax dafa ma woo wax bay jooy te xoolal ñooñu. ay international lañ di jeexal seen passeport yi di wër fépp xam si aar loo xamul dam foo damul mais dañu ma bëgg te yàlla tax. bi xoolee si tapare bi ma xoolee. si jour boobu. comme nan jàkkaarloog moom kom si. après ah, gàllem laa jubal si man tamit jour boobu noonu maa ngi ñëw indaale ngaam bu toll nit ngaam bu mag fii ndax Papa Sow jour boobu daf ma dóor fii maa ngi expliqué sax naan daf ma xam ma loolu passé na. mais dañuy papa sax bàyyi na sama sama grand la waaw mais waxtaan la nii rek ba ma ñëwee dama wax papa saw dafa ma dóor fii ñu ne ma yow sa ndawaay bi wala papa saw dóoree doo dee mais boobu xaadim jël naa fii coup boo xam ne oh. ma ñëw ba sita wan ko ko ne nag man ni ma toll nii su ma ñee su ma ñemee affronté ay papa saw ak ay góor a soog bañ lu la yàqal la kon rawatina yow mi nga xam ne yaa moom sa weccet yaa moom sa lépp gën a rey sa bopp mu a ma mbay bu la dara met dinaa rey sa bopp baax waaw ma dolli waat ko wan ne ko ñun tey bu ñu la bëgguloon xaarim mais man loolu ma bëgguloon Siteu du ma taxaw foofu di affronter ñooñ gis nga ni ma tol ak ni ñooñ toll mais bi may dem xalaatu ma ne pour man bi may dem pour man ay melentaan lay affronter tellement que bëgg yëg-yëg bi ma demee la mais ñooñu ku ma si ne góor a soog bu ma téye daf may lem dugal si poosam mais bi may dem foofu dem naa fa xadar boo xam ne gisuma ki may gisuma ko kenn man li mu kenn bu yàqal Siteu waaw bis bi rek a ma ñor te boobu bëree si des xam may sant yàlla bi lépp passé tey Papa Sow tamit ne grand bu baax barke Serigne Touba gis nañ gaale fóode bi geste bi mu si def te bu ko neexoon tey xam nga ministre Pam Malick wax loolu mu wax leneen ne ko non non boobaa dañ koy baay mais def si def lu nice ñu ngi koy gërëm suñ grand la d'ailleurs sax ñoo ñu tëgal bis waaw Siteu Siteu Siteu Siteu Lac de bi ñoom ñoo ko tëgg Mansour. waaw mais nag mais nag poussé nga ma sax pour ma dugg ci diggante Siteu ak Lac de cooli cool na dañ ñëwoon Siteu du ko du ko jël ak nangam nangam Siteu ah, du jël du jël du jël Lac de Guiers loolu du combat waa jàmm gën ñu ko doon mais ñu jékki-jékki waa jàmm gën ci boppam bëgg combat bi lu waral lool. waa xaarim parce que tey yaakaar naa ne nit moom dafa war a ñeme défi quoi. te Siteu nit la boo xam ne moom ay rabam xam lan lay bañ mënut lii mënut lii Siteu bi muy bëreeg saakees moo saakees ak baabooy lañ ko tegal ne ko tànnal bokk leen lu ñu leen fay mu bàyyi fa baabooy jëli saakees biñ koy ndax bañ du yomb mën naa la ko limal ay combat ay combat am ji tamit comme la dëgër deux bi mu duggee si lamb ba tey kenn daan mën naa ne à part Eumeu Sène daanu ko te lamb jooju la dëgër mën na toog fu ko neex di ko seetaan kenn daanu Lac de Guiers si làmb bu weesoo Eumeu suñu grand moo tax ñu boo ñëw jàpp ko du ko daan ko si kattanu yàlla. baal li ngay wax. yomb xoola àddina ñoo sa <laughs> gars yu wër. ma ah. nga gis ku duma Lac de Guiers. xaarim damay toog di kontaan dèjà Siteu li mu si am rek ndam la avant ndam la tey ngay dajeeg nit ñu ne moo mën moo la ëpp doole bu lamb jeexee. amoo foo ko jaar dèjà loolu rek moo tax ñun làmb ji saa bu ñu xëyee ndam la ñuy dundee parce que loolu rek ndam la imagine léegi boo ñëwee daan ko te wallaahi la azim si kàttanu yàlla ak mbaaxam eh, loxo dina dar gémmiñ te te du yóbbaale tib de. ani ah, foo ko teg lu mu wax si bëy bu feebar ñu ne der baa tax moo tax mënu si sori mais si kàttanu yàlla ak mbaaxam le 19 soreetul un mois tout est si des. noo gisee nii si. gisee non si nga ko gëj a gis. gëj nañ gisante nag bët ak bët depuis bi mu demee voyage ba léegi mais ñoo ngi déggante ñoo ngi déggante bu baax mi ngi si de ndax dëgg keroog gis nañ ko mu ñëw indaale ay soo chocolat am. mais moom koy da koy safal. xaw ma soo tamaate loxoti la xaw ma chocolat xam nga mooy soo mboom mu tegoon noonu ak affaire yi mu si daf di làmb zem. li ma doon bañ rek mooy mu ñëw dégg li nit ñi di wax yaa si Siteu yaa ko ëpp doole mu doxee loolu. mais moo ngi liggéey liggéey bu métti. signature boobu ñun dañ ko sauvé. signature boobu nañ ci sentaat làmb la ak lu làmb bu ñu xamoon gént bi ñu def ñun ñoom dinañ woo Siteu sax décorer ko ndax signature boobu bu ñu fa ñëwoon làmb mën na jaare foofu sax. est-ce que du da ngeen teg xel. non teguñu xel Siteu dafa sauvé signature boobu Arafas ak Zos. tension bi eggoon na foo xam ne booy def signature war si boole Siteu ak Papa Sow. soit du mbër yu ndaw ñëw wala doo ko def loo xam ne ay supporters dañuy dugg. mais affaire bi dafa rambaxoon trop trop mbër yu ndaw yi jaar nii xool la dëgër fi mu toog nii lañ ko doon rombee gauche droite gauche droite ñii di aalonte fii loolu imaginer Siteu nekk fa ak bruit ñi war a topp Siteu ñëwaale ku nekk di jaane sama mbër fi nekk loolu lan la mën a indi saal boobu lu ñuy xalab làmb maanaam li Siteu def noon daa metti rek ndax daa woon ñu ko bëgg a gis amaana ñu dëkk jàmm gën sax am na am na am na ñum si métti ndax bëggoon nañ ko gis mais lu gën la def lu gën. mais am ñu ne Siteu Siteu day làqatu rek moo tax. waaw mais lamb mbër bu loloo màgg daan loolu tamit bañu ma ko de bañu ma lool. contrat bi nii tamit. Siteu moo gën a bëgg ay signature mbër yëpp Siteu moom nit boobu la moom bu nekkee fii nit moom signature Siteu day teel a tax daal i gaañ leen dam moom dafa bëgg ay signature mais mooy li ma la wax am na ay yeneen dogal yu si am mais bi si gën a jàmp ma wax la ko nii mooy bu Siteu ñëwoon foofu làmb mën na fi. non du baax daal. mën na doy waar mën na doy waar mais yéen tamit yéen yéen bañ géwël yéen it di ngeen di di ngeen di saf-safal dem ci maara yi ah, di di def seen i bagage waaw am na ñu koy def am na ñu ko dul def waaw am nañu nit moom affaire ay suwaa rek am na ñoo xam ne dañ koy def mais am na ñoo xam ne duñ ko def. di ngeen ko def. ñooñu la. ñun tuuti rek ay muslaa rek taxaw juróom-ñaari sëñ Fall yooyu noonu rek. waaw des may gis ngeen ni ngeen di jël ay ay ay kiiw ak ay ay béjjën wala des fois. non lamb la moom gis nga mbër bu lekkee avance su mbër kii ah ànd ak mbër me du si mooy kenn nu mu leen mën a def ba jour boobu ñu nelaw rek da leen koy def moo tax ñun tamit xam nga duñ toog fii di wax mais tamit ñoo ngi si li ñu war a nekk waaw ah, parce que ñun moom ay doomu àll lañ Dakar gi lañ juddoo Rofi mais ci àll ay ay nitu àll lañ waaw. jii kontaan bëgg naa ci yow Bamba di kontaan sa teewaay xam nga di nuyu lañ suñu suñu suñu caméraman suñu xarit moom suñu bokku taalibe la di bëggewaat jàmm gën ji yëpp. di sant tey suma may rax su may mag xam nga ñi nekk fii ku si mel ni Boubacar Aline Samb xam nga moom su ma rax ju baax la may sa seeraas eh, ku lim juum gars yi sax ñoom loolu taxu leen fee ñëw mais tey fi ñuy defee affaire bi c'est babaas la ñooñu nii di ko defee buntu place bu babaas bi nga xam ne ku sol dàll bu rafet jàmm gën moo la ko solal di bëggee rek nuy waat ñëpp xam nga di nuyu tey ku si mel ni Ousseynou Ka suma xarit maam Mama Lamine sama seex bi maa ngi koy bëggee xam nga di ko wax moom jàmbaar la chaque jour damay gën a kontaan si moom barke sëñ Touba Mama Lamine maa ngi koy bëggee bu wér a wér a wér a wér xaarim Mama Lamine maa ngi koy bëggee bu baax xam nga moom suma xarit la dim noo trop trop trop trop trop mais yàlla baax na kooku man rek la bëgg mais man moom rek laa man moom rek laay topp man waaw Siteu ñu yéem de mais man Mama Lamine rek laay topp Siteu moom dañoo yéem moom moom moom nañ ko bàyyi noonu rek mu toog xam nga di di bëggewaat képp kuy mbëru jàmm gën ñoom Laurent Liss yi lée ku lim jum mbooro caatu fora ñoom caatu jolof mbaru jàmm gën yëpp ñoom mbay xadaa ku lim juum gars yi ku lim juum maa ngi bëggee ñëpp baaba jaxal xam nga ñëpp abu njaase bu laal mbëru jàmm gën yëpp taxee suñu doomu ndey su lay su lay génde de képp kuy tax ngeen bu jàmm gën ñoo ngi sa ginnaaw loo am ñoo ngi si xeebuñ la ben yoon ñoo ngi bëggee ñëpp di bëggee nag képp kuy géwél bamba ngir yàlla lii génneel ma ko benn nit dina tax ñu xas askan ñun géwél yi kenn gënuñu mais jamono ji yii di am ñu koy gis si TikTok beeg nañ ko bàyyi quoi ñun ay noobul lañ te benn sëb nag dina dina benn saako benn pompiter day yàq saako mais ngir yàlla loolu àq la parce que munoo toog wala kon de ñi koy def nañ affiché ne du affaire u géwél ñoom la parce que am na ñoo xam ne sax jamono ñu duñu ay géwél te ñoo gën géwél ñun showbiz lañ ne fii tey ñu fiy tee ay ñu fiy ñu mënu ma wax quoi parce que wax a metti mais yàlla baax na nañuy gën a bàyyi xel daal suñu magu ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay royukaay bu ñu defee dara ñoom la ñuy wax boole ko géwél yëpp ñoom la ñuy xool ñun kenn ëpp ñu fula barke Serigne Touba. kenn du la may ba pare di la jéem. non non buñ nangu loolu fii nit fekku gisaguma bokk ku fi ñëw ñu jox la caabi kër ay million lañ lay may kii loolu caabi kër sax waru la wax loo loo xam ne dañuy pare xas géwél yëpp maa ngi commencé di gis ay ay booy yoo xam ne ñoo ngi ay booy yu ndaw yoo xam ne ñoo ngi def seen i ay affaire naan bëgguñu géwél ñëw fa tey ku si mel ni Mbathio Ndiaye exemple. bu defee foiram daan ne bu fa géwél ñëw. waxewu ko ngir yab géwél mais yenn xeetu géwél yee tax. te jamono ji ñu bari ñoo ngi leen xas naa leen géwél te ñooñ duñu ay géwél mais métti métti jamono moo leen poussé ba ñuy def loo xam ne sax dañ naan ay géwél lañ fekk duñu ay géwél mais ngale ñi nga xam ne ku leen xool xam ne géwél lañ sama papa Sala Bigué hmm. ku ko gën a diñ gën ko bëgg boppam mais seetaan naa ko fi ñu wax si Sonko ay ni ak nii mu Sonko amul géwél moo tax topp ma ko xaw ma moo tax looloo ma si xaw a jaaxal ñaat ay nit di saaga ay géwél di wax lu neex ndax wax boobu mais bu ko neexee bañ a am géwél ay am géwél ak yooyu wax yu yàqu la ñun nañ ku si nekk nekkal si li nga war a nekk Bamba ma li woom li ma war a jot barki Serigne Bamba nit mënu ma koo tee jot yee bul ndawal sa bopp ndawal sa askan ngir benn weccet yu ndaw yi noonoo ñun ñoo mag loolu te ci dañoo riis ñun ñoo yor fukki junni añee ko tey toog ñun géwél ama di gërëm Fallou Koundoul suma xarit Ousseynou Ka Bàcc Diop maam Roxoya xam ama ak suñu waa kër di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp Deef Diop sama rax sama xarit Daaru Diop maa ngi koy nuyu papaay Segu xam nga di bëggee suma mag Balla Seck ak sama nijaay Cheikh Sarr nuyu nañ ñëpp Bamba maa ngi kontaan si waa Bantamba TV di bëgg si yow bu baax. bàjj na nag jàmm yàgg. gars yi lu lu ñuy taaxali ko eh? baj géwél ah affaire baj géwél la tudd n'est-ce pas baj géwél maay numéro bi ñi si des am ngeen problème de na ngeen créer nag en live affaire bi affaire bi nag loolu. mais man loolu ñu koy waxee sax loolu rubrique la rubrique créer bu leen dam nag jël lu yàgg naan lu bees la ngir yàlla rek. man yàlla xam na ne damaa créer en live na ngeen créer nag merci beaucoup. balaa ngay balaa balaa ngay créer mhm. ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di bëggee ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu kale woon fii ah topp chaîne bi nga xamante ne ni moom mooy Bantamba TV ñu ngi bëggee ñëpp. nii rek la saa su ne da leen ko teg fii ñu bëgg leen tak yéen ci lépp loo xamante nii yéen a ko bëgg parce que yéen a ko wax yéen ni ñun ñoo leen bëgg mais ñun tamit ñun ñoo leen bëgg lépp loo xamante ne nii bëgg ngeen ko di leen ci topp defal leen ko comme ni ngeen ko bëggee lex maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax bamba ci micro bi ah di jaajëfal ñëpp. di jaajëfal ñëpp mais su ma rax Lala Mané le 21 bi day def soirée bu mag. dañuy ñëw man ba ma gëjee xam ni ñuy fooree sabar ëpp na 15 ans ndax booy bi samay sabar ak yëpp këram la ne damay programme tëdd fi may tëdd ne ko Lala jour tel am naa programme dafa lii mu woo ñëpp gérer yóbbu sabar yi ma dem tase fa moom moom moo ma nagam loo kii moo ma tayal loo man. ndax déggal gu ma si déggal ak sama doom xalifa Malick mbokkum yaayu borom Touba njarga seeg sama xarit <laughs> Ablaye Mbaye xam nga mbokkum sama xarit Daawda xamee nga booy bi ko kii xamee woo kan la kii kan ah, kon baax na doom yaay Papa Sow la <laughs> wax nga dëgg mais da ngay créé wala da dara xor na rox saara xool ko dem na xoolum nga fay fay fay o waa fañiñ fañiñ fay fay fay o oh, wacca ca doxal guerre bàyyil yaaba ah. laale laalay baaxu góor mais boo amee Siteu nag di nga laale laalay baaxu góor hey wax leen Siteu wax leen Siteu da guerre noo koy def